waaye sallallahu alayhi wa sallam nee na lii ku koy saxoo téeméer suba téeméer ngoon say bàkkaar su bari woon ba mel ni fuuriitu géej it sama boroom dana la ko jéggal moo di subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi wa bihamdihi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ciy def cent par jour say bàkkaar bu bari woon ba tol ni puuriiti géej sama borom jéggal la ko kon yooru yooru ajjuma lool la loon andi loon tey ngeen àndoon ak seen mbokk Oustaz Saliou Niang ku bëgg a jokkoog mu man ci yeneeni mbir man nga woote 77 060 96 70 mooy numéro whatsapp bi 77 060 96 70 wasalaamualeykum wa rahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب